bisimilahi rahmaani rahim maa ngi leen di leen ziare bu baax di sama nuyoo ak samay kàddu si ma si sama médecin chef district sanitaire de Mekhe muy docteur Soxna di nuyu waa région médicale yi nga xam ne tamit ñoo ñëw fi muy partenaire bi euh, di nuyu sama personnel bi may liggéeyee di nuyu sama relais yi bàjjenu gox matron yi population Tilmaxa CDS bi bàyyi ma kenn ak équipe cadre district vraiment di rafetlu initiative bi nga xam ne ñu ngi ko def si nii Baye Malick si li nga wax rek lay revenir tuuti euh, boo gisee affaire bi mu demee nii man jeudi la ma ko wax si la ne ma dafa am mobilisation sociale bi ñu war a def au niveau du poste de santé de Tilmaxa te dañoo tànn poste de santé Tilmaxa ne fa lañ koy defee biñ ma ko waxee noonu boobu laa la woo bi ma la wooyee si laa jël relais yi suñu groupe bi ñoom it ñu sensibiliser ñi nekk ñu jàmbaar parce que je dégg léegi yàggul nga sensibiliser bi nit yi mel nii te man bi ma ñëwee Thilmakha ak léegi 4 mois kese laa fi def kon alhamdulilah rabil alamina bi ma fi defee ñeenti weer ma woote ñu ñëw wuy si ma bu doon ñett nit sax dama koy dama si dama siy dégg parce que nga oote mbooloo mi ñëw wuy si la yaakaar naa ne loolu lu sedd si xol la. sama relais yi ba ma leen ko waxee kenn tegu si baat ñoom ñëpp dañoo vacciné wu ñoo vacciné wu kon loolu ma dama dama si dama siy bég ndax munoon nañoo nag naan ñàkk bi nangam nee naa leen vaccination bi du dara parce que prévention la covid baa ngi fii covid bi si ñuy joxe yëpp bëri na mun nga am covid am jaare mun nga am covid doo sax doo def dara nga am sa fièvre covid baa ngi fii am panier grippe bi ñu gis ni yëpp covid la su jugoon ba tey xam nga ne heure Ah, di rafetlu bu baax ah, ah, kii bàyyi li bi ndongo vraiment kii li ñu fi wax rafet na lool di nuyu sama CDS bàyyi Malick bu baax mag la mais wax dëgg yàlla lépp loo xam ne liy jëmal kanam poste bi di nuyu sama frère As tamit le trésorier lépp loo xam ne liy dugal jëmal kanam ci poste bi rek loolu moo ko soxal te chaque jour si loolu la ñuy dox ah bu léegi ba léegi wax dëgg yàlla yàggu ma fi de mais mel ni na maa ñoom def naa ñoom ay fukki at te loolu tamit sant yàlla rek la parce que mënoon naa ñëw su ma leen waxee dara ñu nekk di def ay tiiraay man ak kii mais amul boo problème loo leen wax rek dañ ne ñoom loo xam ne rek lu war a doxal askan bi rek soo leen ko waxee rek ñoom dañ si dox di leen nuyu bu baax na di nuyu sama càmmeñ euh, euh, comment dirais-je euh, Seekaan Ndiaye maa ngi nuyu professeur ñoom ñëpp di leen ziare bu baax a baax di nuyu sama personnel bi di nuyu sama sama gestionnaire nabu di nuyu sama collègue bi Oumy démb ba léegi dafa bàyyi ay liggéeyam ñëw ba fii tëj postam loolu ñu koy lu muy xam ne sante moo ko tax a jóg kon wér-gu-yaram kenn du ko yemale ak leen di leen wax nag vaccination bi am na ay effets secondaires effets secondaires yi lan la boo vacciné des fois sa loxo bi mun na diis des fois mun na la def nga mel ni liliw des fois mun na la mun na la def nga mel ni da ngay bëgg wëcc mun a mais ay mandargay jaar jàll la mandarga yooyu day dem foo ko gisee boo yeggee sa kër bu la dalee loodu dara day dem mandargay jaar jàll la te da ngay gis vaccination bi des fois da ngay am ay signes yoo xamante ne sax yow soo vacciné wu parce que man amoon naa problème arthrose sama tànk mais depuis que ma vacciné wu ba tey keroog maa ngi koy démb maa ngi wax ummi ma ne ko man gisatuma sama tànk yi di métti kon naa war nañu xam ne ne vaccination bi am na njëriñ mm-hmm. prévention vaccination bi rek seule la vaccination moom moo ñu mun a éradiquer maladie bi kon nag nañ takku ba dëgër euh, jéem a jàpp ba dëgër xeex feebar bi mu jóge fi dema dema dem ba nga xamante ne duñ ko gisati fenn te yaakaar naa ne population Tilmaxa vaccination yi passé dama vacciné foofu am am am pourcentage bu mag bi passé nii bi ñuy def te daanaka ñu bëri si lañ vacciné woon man du may doog a ñëw ñu bëri vacciné moo tax tey mu demee nii sax mais bu nekkoon loolu kii kon dina doon ëpp dina doon ëpp nii te démb dafa amoon kii bu fi amoon gàmmu nit ñi dañoo fanaan ci baas yi ci gàmm bi moo tax loolu moo leen empêché ñu bëri tey ñu waroon a xëy mën a ñëw ni ñëwul mais bu nekkoon activité boobu am ci woon événement boobu yaakaar naa ne dina gën a ëpp nii ah di ñaanal nag vaccination bi ñuy def képp koo xam ne ñu ngi ko fi ñett yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu sutura may ñu wër ba lépp loo xamante ne ñu ko si yàlla buñ ko ci gis képp ku fi ñàkk rek yàlla na yàlla def wër ak yokkute bu déwén si heure bi ñu waat fi ci beneen beneen euh, mobilisation bu bokkut ak Covid 19. Ah merci jërë beaucoup merci beaucoup merci aussi à la région musicale de Thiès.